maa leen di gërëm yéen ñëpp di leen sant ci bés bi nga xam ne tey dañ koo jagle affaire lekk ba suur c'est-à-dire def tout pour que nit ñi bañ a nekk ci affaire xiif ak affaire coono wara lek lekk doo lekk wala sa doom war a du lekk loolu nag lu yàgg la parce que 1945 bi ñuy créé FAO euh, yàlla def na 16 octobre la woon 16 octobre boobu saa bu dikkee dañ ciy dolli dolliwaat ay jàngat def ay taxaw seetlu ndax avancé nañu wala reculer nañ dëgg la ñu ngi avancé waaye xam nga ren année bii naq année bu naqaree évaluer la ndax mbas mii ni nga xam ne moom la def béykat yi def ko sàmmkat yi def ko nappkat yi def ko ñëpp ñi nga xam ne tey itam dañu nekk dans la consommation comme ni nga ko waxee fii en salle tey nag si ko deef woowoon ñu fi ñu ñëw fi réunion mu ànd ak GRDR ak département euh, euh, euh, conseil départemental bu Tëngéej ak mairie Rufisque pour ñu sottante xalaat ci naka la ñuy def programme alimentaire territorial boo xam ne dañ ko tënk ci territoire Tëngéej bëgg yëf yi dellu buum dellu ca mbooy mbooy ba rek afaaw li muy def ci transformation jigéen ñi leen wër yëpp ñuy liggéey ak ñoom léeg ñu liggéey ba pare transformé du ñu am fu ñu ko jaayee loolu nekk problème Eh, ñuy ñaan aussi autorités yi nga xam ne ñu ngi déclarer journée bi tey am ci ay pas-pas ñu gën a gestu jigéen parce que bañ ñëwee dañoo fekk béykat yi béykatu lendeng yi ñu ñuy won ndox mi ne fi mun a ndox baa ngi walangaan loolu dañ ciy sant yàlla parce que nag amoon na tàng boo xam ni taroon na loolu ñu am seeni tool mënuñoo am ndox dégg nga parce que déconnecté nañ leen ñu wooñu yëgal ñu ko ñu ànd ak ñoom fësal ko xam nga loolu li muy wone mooy place bi société civile mën a am ci réew société civile dafay mën a nekk benn kuréel boo xam ne day jokkalante day fexe yow jafe-jafe yi nga am ñoom ñu jël ko jottali ko fi nga xam ne yow xëy na mënuloo fa yegg médiation mi ngi noonu interface dox ci diggante bi société civile mooy loo xam ni mën na créer ay espace yoo xam ne nit ñi mën nañu toog daal dafay pencoo problème yi nga xam ne moom lañuy ñuy jànkoonteel wax ci sottil ko te jaasi du génn sànni xeer du ci am ñun société civile war nañoo mën a def loolu rôle boobu la ñu joué fii ci Lendeng ba seen Sen'Eau muy secteur privé ànd ci ak conseil départemental ànd ci ak état bi à travers le préfet ànd ci ak maraîchers yi ba tey sottil nañu problème mu ndox bi nga xamne maraîcher maraîchers lañ fi amone